Mm-hmm. internet di sans bi ñu leen di kontaan ci ànd bi ngeen ànd ak ñun euh, comme ni ñu ko di defee ci seen émission bi nga xamante ni mu ngi tudd gise ak la rencontre avec alors tey ñu doxantu ba fii nga xamante ni moom mooy Caaroy euh, fii ci euh, boo soriwul daanaka pharmacie Jàmmalaay ñu seet ci ki nga xamante ni moom mooy suñu papa di référence réew mi également ñëpp di ko teewlu ci muy wax gis-gisam ci réew mi rawatina wàllu làmb ci ni muy doxee di Khadim Ndiaye maa ngi lay nuyu la ziar. waa jërëjëf Ouzin di la nuyu di nuyu sa caméraman Babacar. Euh, di sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaanal suñu ñaari waajur fa ñu jëm dàqal leen fi ñu jógee euh, di sant sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké ñaanal ko lool Mbacké mu yàgg bi loolu te wér ak xalifa général yëpp euh, Ousin dafa am loo bi ñuy waxtaan léegi dafa am loo ko ma tuddal léegi te boobu taaloo ko caméra yi muy Pape Abdou Fall production di nuyu ak njabootam avant may ñëw ci loolu sax dafa am tuuti parenthèse lu may def dafa am loo xamante ni ay meubles yu bees soo ko bëggee demal ba Jojo Meuble mu ngi ci foire boo demee ba ci VDN waaw boo demee ba ci VDN ah jëm jëm jëm biir Dakar boo passé armère yi mi ngi nekk sa côté droite su fekkee Mermoz nga jógee nag di ñëw mi ngi nekk sa côté gauche boo fa taxawee rek boo passé pont bi rek Meuble yi mucc ay ba nga fa di nuyu Pape Abdou Fall production di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm defal ko nooru daare nii defal ko tamit ak njabootam xam nga léegi rek yaa ne ma sa xarit Pape Abdou Fall te boobu taaloo ko caméra yi noonu la demee de bërki dem bi may jaaree Colobane ci moquette bi ci gaa yi jaay yére foofu dama a tël rek gars yi ne ma doomu ndey Pape Abdou Fall xamu ne woon sax sama diggante moom am na impact boobu ndax di nitu valeur mën nitam di ñaan yàlla bu seytaane dugg suñuy diggante nit la koo xamante ni day def ci làmb loo xamante ni man ma fekkee gis ci sama bët te bëggul ko ko wax xanaa xamoon ni Babacar lii may wax nii sax Pape Abdou Fall mais man maa nekk nit koo xamante sama diggante moom à vie la yàlla na ko yàlla sutural sutural ay soxnaam yëpp jàppale leen kooku kenn la ci man ma ñëwaat ci kenn muy Wally sekk muy doom ci coon sekk te nuyu yaayam Kinde juuf ndax euh, Pape du Fall ku ne xam na ni man Seck année du ma namm dara ndax Pape du Fall lépp la may defal Pape du Fall damaa libéré ba pare ma toog ca deuxième jour ba Wally Seck ooma par bisu ngoone ne ma Wally Seck nee na nga ñëw mu jox la saxaar te tabaski bi métti na ci man trop ndax sama contrat bi lañ dañ dagg dañ ko dagg à cause dañ ci ñëw ndax à de événement yi fi xewoon di ko ñaanal yàlla moom Wally sekk yàlla na baat bi wér jaaga ki ne Diouf yàlla buñ séddale dara sa ginnaaw ma jóge foofu jaar cité kër góor gi di seet Bougane Bougane Gueye Dany fekk ko ci këram buntu këram mu taxaw ma xam ni nag kii nag vrai responsable ngi li ma gis jikko ji ma gis ci Pape du Fall nga xam ne du nëbbatu daw laqatuwul te ku mu mën a tane mi ngi lay dimbale loolu laa gis ci Bougane Bougane ma fekk buntu këram mu taxaw ak ay korom ma ñëw dama ko doon nuyu si rek ndax suñu góor la ndax moom mi ñoo ko may mu ñëw nuyu eh waa grand na nga def gëj ñu gisee kërëb kërëb xam nga jox ma cër jox ma wàcc waay ñu kafree ñuy dem mu yëkkati loo xamante ni wax dëgg yàlla surprise na ma trop bugaan yàlla na la yàlla jàppale maa ngi lay ñaanal nag di la ko ñaanal yàlla na la yàlla jàppale ci politique bi nga ne ak sa doomu ndey Ousmane Sonko yàlla na leen yàlla taxaw sàmm leen aar leen di nuyu nag as ndaw as ndaw borom dukumaan maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di nuyu sama benn xarit njiin ma nga ba diwaanu euh, mbaaw njiin di nuyu njabootam gépp di nuyu à l'ensemble bi yëpp ay ay ñam ñam ñam ñam Matar Ba ministre ñam keeba xam nga waaw ñooñu ñëpp maa ngi lay nuyu ñam Kanji xam nga di nuyu ñëpp képp koo xamante ni rek xaadim euh, journaliste yi tamit maa ngi lay nuyu waaw ndax menn ni yow yaa ma ci woo baalu maax wax dëgg yàlla mel ni yow ak sama benn jigéen kooku rek yéen ñaar rek a ma ci woo baalu ma ci ax moo waral sax suñu interview bi ndax li ma oo ci biñ tëbaskeeg léegi ci jour tëbaskeeg léegi mat na téeméeri nit ak juróom benn fukk ci ay ay mais dama xam ne comme ñoom dama nekkoon suñ soxlaa dara ci man mu yomb su bis bi jotee war na ñu mën a jël seen temps oo ma na ma xaari baal ma ax mais yooyu amul sens di baalu réew mi yëpp ax waaw yéen rek laa fi ak sama benn jigéen wax dëgg yàlla di baalu réew yëpp ax xew ak yëpp ñuy baalu ax ndax biti bis bi bisu baalante ax la bisu te njukkal la di baal wax sama nit yu baax yëpp bàyyiwuma kenn képp koo xamante ni rek ñu nekk ba bisim réew waa diaspora bi nga xam dañ may bëgge maa ngi leen di ñaanal lépp lu ngeen fa am rek yàlla na yàlla ngeen ko muurloo xam nga tabaski jot wala màggal jot wala korite jot mu fekk la àll nga bàyyi sa njaboot loo uti rek loo tax a jóg da doo ci lekk yàlla na ko yàlla yombal man diaspora bi dama leen di bëggee ñoom moo Ndiaye ñam Babacar ñun ñëpp dama leen di bëggee di leen ñëm di leen ba ñëpp lay baalu àq di wax ni réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm xam nga ndax àdduna amul solo gis nga euh, Babacar Ousseyn gis nga li fi ne ci àdduna delloonte njukkal rek moo fi ne euh, ak sëñ Cissé fan yi passé bi passé dama dem kër sëñ Cissé mu sëñ Babacar ànd ak Lamine seen bokk naataangoo bu Lamine TV Lamine Seck ñu def ay ay minuit lañ fi egg doon def benn reportage biñ pare ay une ci mamel bi noonu ci mamel bi ah, Euh, boo rombee kër Pape Abdou jël kii bi ñu ñu ñu jaar foofu ay 2 heures matin ñu gis fa benn trois moto yu yëpp yëpp yëpp trois personnes ay T-Max euh, interpellé benn gaayen ak benn gel ci taxi mais taxi bi ñu yoroon taxu koo gaaw noonu Lamine moo jëkki ne ma eh ay agresseur ay agresseur lañ femme bi ñu dàq ko yor ay 37 ay jaasi la ñu yor 37 dàq femme bi femme bi daw bàyyi fa otoom oto bu ñëw turne man ne Lamine ne chauffeur bi taxawal taxawal boobu àllu naa quoi bi chauffeur bi taxawee xam naa nag dañ ma séen biñ ma séenee ci lañ daw femme bi laa ko oo fekk waa ji mu àndal sax ponkal mi daw na moom ba dugg biir mbooy gi ci booru kiw Cheikh amari rek euh, sànc Cheikh Amary ci mayotte foofu la quoi léegi gaañ femme bi daw femme bi bi ñëwee dafa ñëw dugg ci taxi bi tiit daan ne am na ku ma àndaloon femme waa ji ñu gis ko mu ñëw mu ñëw dugg ci taxi bi ñu dem ba ñu topp gars yi borom point bi nga xamante foofu ngay jàdd pour jëm TFM gisuñu leen ñu retourné waat ne femme bi ana ana sa oto mu ne sama oto ne bàyyi fi ay dàllam ma ne ko ñu retourné ñu retourné yàpp femme bi ci otoom euh, ya jox ko yóbbu ko ba ci caabi ba ci otoom mu taal otoom ne ma xaadim dimbale ma nga taal ma ma tàkk mais di wax ni nañ delloo si xel yi ñooñu ma gis ak plein air boobu ñu koy def foofu bu ñu jàppoon femme bi dañ koy rey ndax ay 37 lañ yor te mat nañ 6 personnes ndax ay teem ak sa lañ yor ndax ñun topp nañ leen mais taxi bi ñu yor comme gaawul gisatuñu leen ndax xam naa dañu dugg ci biir ruq yi ndax naa ni il faut que waa foofu sécurité yi nekk foofu ma leen wax yu mel ni bu ngeen ko gisatee ngeen di jóg di intervention ñoom ñëpp ñu ngi dàqatu seen biir di ko gis femme bi ba léegi tey san moom itam ay borom mi bokk la ay famille ñu nekk bitim réew ñëpp oo nañ ma remercier ma yàgg naa ko def a ah yàgg naa ko def di wax réew mi daal yàlla fi yàlla def jàmm quoi jàmm ci lépp xëy na fi yàlla jàmm jàmm xam naa du ñàkk nag joojo meuble dina jaar commercial nag ndax defal nga ko fi publicité waaye suñu papa ko ko ko bañal euh, mi ngi noonu mais euh, bu ñu ñëwee ci maa ngi doon euh, léegi nii rek daanaka yàggul mi ngi may woo ni sax xam naa li may tourné moo kii moom muy suñu papa Gaston Mbengue nga dafa amoon ay tawat ba yàlla dogal keroog bi mu wootee Bantamba Sénégal yëpp kontaan si ci appel bi ndax nga gisee ni mu expliqué tawatam bi ak ni mu dellu si waatee bay téléphone di wax ni mi ngi si jàmm waaw di ko ñaanal yàlla Mm, man Pape Fall rek laay topp nëbbuma sama dëgg ragal féete day xëy ñu wërsëg mais Gaston dama koy ñaanal yàlla may ko jàmm ndax suñu xamantewul sax bés ñëw na mës na maa kon dañ ko war a ñaanal yàlla may ko jàmm may ko taw féex defal ko doomam xam nga euh, di ñaan yàlla ko yàlla may wér bi mu génnaatee ku ne xam na ni tawat bi wax dëgg yàlla sonaloon na ko mais nag comme génn na ba wax rek yàlla na yàlla na fi jaare wér ak képp ku tawat ndax loolu rek lañ koy ñaanal ndax loolu mooy adduna xam nga adduna moom yéenante jàmm rek moo fi ne man li ko dal man la gën a soke di nuyu doomam magam Mbengue xam nga euh, di ko ñaanal tamit yàlla may ko wér xam nga euh, tamit gis naa ni wax dëgg yàlla Pape Abdou Fall ak Gaston du ñu du ñu far du ñu réeroo quoi ndax lu bëri euh, am na benn jour toog naa muy téléphone Pape Abdou Fall wax dëgg yàlla naa ko makanango xoolal ma ko te dénk na ko ku mat a dénk nag ku am fule ci boppam am fayda nga xam ni daray àdduna fëkk ko Pape Fall nit la koo xamante ni su may reprendre ci moom sax sama xol day tooy quoi ndax sama xarit la sama confidence la tey Pape Fall su ma doon wax ak yow nii nii nii mu ooma léegi ma arrêté barki sëñ Fallu beneen baat ko wax ndax moo ko liggéey sama diggante ak moom quoi te Pape Fall ay nit a ma boole ak moom ah, ay kilifa nga jaaj mën na seede li may wax mais tey du ma nëbb sama dëgg ah. soo tegoon kooku teg Pape Fall ci Pape Fall laa jëm ndax taalibe Cheikh na Cheikh bu te gor la sama yaay bu ñëwaatoon lii may wax dina ko dëggal ndax am na lu bëri lu ci fekk kon Pape Fall yàlla na la yàlla taxaw ci barke Cheikh na Cheikh Saad bu ak sa njaboot Pape Fall lépp lay wut rek yàlla na la ko yàlla yombal Pape Fall barke Sëñ Tuubaa Mbàkke yàlla na la yàlla taxaw maa ngi koy ñaan ci sama xol laa ko tibbi ci barke ci barke Tabaski bi ñu jub si képp ku lay xaar rek yàlla na xaddi. macha allah macha allah mais ma sa doom laa ko sax mën a tuddee muy Ada Fass amoon fi ay jafe-jafe ban condamné ko deux ans mu jékki-jékki rek euh, ñu daal di koy gracier ci ñu ku ñu condamné deux ans ferme amende ko presque un million cinq cent ko gracier nag mu jur coow déjà naka nga dundee coow loolu en tant que ku yëngu ci làmb ak waaw xam nga man waxoon naa ci Ada li ko dal mbër yi sax taxawuñ ko. Ah, parce que ñu bëri nañu Gris Bordeaux wax. gisoo benn mbër bu ci taxaw ak ñeneen ak magi Gris Bordeaux ñoom ñëpp. leen intéressé rek mooy seen poche ah. xam nga te booy bi jeune fille la jeune jeune jeune jeune garçon la boo xamante ne a nekk ci buntu addunaam te am lu bëri maîtriser wu ko ñoom ñoo ko ci war a mën a dimbale bi fi coow li amee am na ñu ko am na mbër mu mbër magu giru bu ko au këram mais pour pourquoi bi li amee mu loon a sol dàllam dem ànd ak ci gars yi ñi nga xam dañuy jàppale Ada di wax ni tamit aussi li ko dal tamit metti na ñëpp ah mais kenn yéenewu ko xam nga mais am réew dafa am nu muy doxee xam nga euh, ak liñ ko tuumaal ñu condamné que deux ans ferme mu tëdd trois mois génn te am yeneen prioritaire yu yu gënoon a jiitu loolu dañuy waxante dëgg ah yéenuma ko lii mais dëgg bu jotee dañ koy wax xam nga tey coow laa ngi nii ñu baaree kër Ousmane Sonko xam nga ci jullit boo xamante ni dafa yor njaboot yor famille xam nga tey loolu yëpp. muy indi ay coow indi ay polémique ñu bëgg ni jàmm lañ bëgg ci réew mi loolu lañ war a njëkk a gracier jàmm na ñooy nañu waxante dëgg am na yeneen yu fi am na ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci kaso bi méritocratie yoo te defuñu ko kon dañuy dañuy wane ni rek adduna am na loo xamante il faut que mu mën a jur coow nañu waxante dëgg rek ndax day réew day toll foo xamante ni liy indi jàmm mooy indi lépp loo xamante ni mooy déstabiliser ci mbir jàmm ci réew xam nga jàmm moo yor lépp mais nag li dal kenn kenn yéenewu ndax xale te si. Hmm, nekkul da ngay dëggal li Bougane wax parce que Bougane nee na am na ñoo xamante ni si ay texte Facebook lañ leen jàppee tëj leen ñenn ñi ba léegi ñu ngi kaso daanaka am nañ fa lu mu deedee ay 6 mois ki jëm kaw Serigne Bara Ndiaye mi fa ñeneen ak ñi ngi ñu jékki-jékki rek a jël Ada Fass pas 3 mois. donte yeneen nañ ko ko ñu bàyyi ko loolu daal du jël ay frustration. Euh, doole su la ko yàlla joxee joxu la ko pour pour nga jaamu ci yàlla ci saw askan waaw déploiement pour nga jaamu ci yàlla saw askan ndax li tax mu mu jox la ko ndax tey mu neex mun a xari Macky mooy président de tous les sénégalais moom la yàlla jox pouvoir yi moom rek moo fi génn ñu xaalal ko yoon kon loolu bu la ko yàlla defalee li nga mën a am rek mooy jaamu ci yàlla ci saw askan seet luy indi jàmm ci réew mi nga def ko seet luy doxal jàmm nga dox ndax loolu lañ koy séentoo mais entourage am ñi ko kii yëpp xam nga ndax euh, Bougane dégg naa ko mu wax te li li bëggoon wax kenn mënu ko weddi nañu waxante dëgg rek kenn mënu ko weddi ndax lu luy xew su xewee même pas trois ans ñuy laam-laame ne déedéet waay man njortoon naa ko man barke Serigne Fallou Mbacké waaw billaahi ak tabaski ji sax xalaatoon naa xam nga ndax ah, ñeneen ñi nee nañ Amadou amul Sall xam nga am Sall xaritam xam nga waaw xam nga du ma tudd turu kenn mais ni acte rek ak la xewoon rek ak ña ko waraloon ngay xam ni bi affaire bi amee ñu ne rek ñëpp na cel te bis baa ngi jub si dañu xam ni pët pët tàggale bu mbaam ak noppam il faut ñu dellu siwaat ñu dellu teg réew mi ndax réew mi ku ne mettiwul man am naa quinze personnes yoo xamante ni ren reyu ñu xar ci sama société nañu loolu liggéey oui ndax fi mu ne nii may wax ak yow bu tabaski bi jàllee li ñuy wax chômeur chômeur laay doon sama contrat yëpp dagg nañ ko. waaw non xam nga mbiri politique yi fi xewoon te ma mooy li ñuy wax les VIP ci coow bi fi amoon ma génn wax te tey laa gën a mën a wax ndax mbër yooyu dañoo war askan wi loolu après la sax ndax mënuñu baalu àq ba pare waññeeku di waxaat dara ndax loolu ca kanam la mais lu dul jeex ci àdduna amul nga muñ ko mu jeex mu neex day jeex mu naqari day jeex. sa contrat bu ñu bu ñu résilier euh, lan la ci mbëri. trois contrats la non xam nga am na ci ñoo xamante ni euh, ñi ma doon liggéeyal am na ci ñoo xamante ay politiciens lañ nekk ci ay parti yor ay société yu ndaw wala ñu yor nangam may liggéey ak ñoom mais suñ gisee may wax leneen xam nga du leen arrangé mais man gëm naa ni àdduna <laughs> lu jeex ci àdduna amul ndax ay serment sax la may def man gëm naa Serigne Touba wóolu bopp wóolu goo xamante ni billahi wallahi tallahi lii ñu def nii barki Serigne Fallou Mbacké banneex la doon ci man ndax damaa xam ne ñoom ñoo def duñ ma ma saree ndax jaar naa ak ñoom foo xamante ni wala am na loo xamante ni xam naa ko su ma ko waxoon tey àdduna tukki wala ñoom seen liggéey yàqu mais dara jaralu ma loolu ndax Xaadimu Rasuul lañ ma tuddee mais xool leen ma ak ñoom fii ak 2 mois wala 3 mois. ci état bi ay politiciens lañ xam nga politique da ngay gis koo xamante ni tey dangay yor sa benn da ngay yor sa benn da ngay yor sa benn sànce sa sa sànce mu dox nga dem dugg ci benn nga dugg parti au xam nga di leen xalamal pour say marché di dox yooyu yëpp gis naa yooyu yëpp am na. mais après loolu yëpp euh, du yëpp après day nekk loo xamante ni du jàll quoi ci suñu ginnaaw la ne xam nga mais gën naa ci yàlla ni Bougane ak Sonko mi suñu góorgóorloo lii defar réew mi ëllëg ci ñoom lay jóge waaw man te man maa ngi leen di ñaanal quoi man dinaa leen ñaanal quoi man Xaadim dama leen di ñaanal waaye ndax euh, àdduna réew mi metti na trop ku gis xale yu ndaw di dawal ay oto 100 millions jëm kaw hmm? yow doomu baadoole bi da jëkkante njëkk a njaay te yaa leen dàq liggéey yow li ngay liggéey sax yow xaaj ba naaju tàng wi ngay dox sax duñ ko def xam nga mais yooyu yëpp après luy passé la quoi xam nga nga fekk Xaadim Njaay muy lu yor ay booy ñii dëkk ay Touba ñii dëkk feneen ñii dëkk Bargny ñii dëkk feneen di liggéey di daan seen doole li ñuy fayoo ko ay 80 mille 90 mille hmm? su bëree ba bëri 100 mille yaakaar ci di di débrouiller ndax amuñu leneen nga war ñëw dooleel kooku ay wax tax nga kii ko man nag kenn du ma mës sa jam naa ni ku ma mës a toroxal rek ndërmeel naa la barki Serigne Fallou Mbacke. position yu yàlla yi ngay faral di jël ci rawatina ni ñuy barricade Sonko ak jul ñàkk a julli xam nga Sonko chaque tabaski da doon dem Ziguinchor julli ren julli jiwul. mais julli yàllaa ko moom kenn moomu ko kon kenn waru ko mën a tere nit ñu waxtaan rek julli moom yàllaa ko moom bisu it man damaa julli ci ci normal ak sama tey bakkan ñëw rey sama xar sama njaboot gën a doxantu baalu ak moom mënu ko def metti na ma tax man xam nga euh, damay xam ni lépp nag loo muñ mu jeex doo ah, fi nekk di saaga wala ngay ci ñun duñu saar yooyu mais dañuy wax ci teeg bakkan rek di wax ni Macky Sall mu gëstuwaat xam ni yàlla cëral na ko bu bëggoon a bu bëggoon a tukki tey avion lay yéeg ndànk dem tukki su ñëwee su wàccee aéroport Léopold dañ koy xalal yoon ba biir këram loolu rek sant yàlla la. mais mais sa entreprise xanaa amuloon ay ay kayit fii sañ nga yor entreprise yoo xamante si yoru kayit loolu xalaatuma ko sax. yaa ngi ñoom bu dee contrat ngeen di liggéey. dafa am contrat yoo xamante ni hmm, waaw xam nga waaw maanaam dafa am contrat yoo xamante ni mën nga ko signé ni heure heure bu heure bu heure bu ko neexee rek mën na ko dagg. xam nga hmm. mais comme bëgg nga booy liggéey da ngay nangu hmm. ndax liggéey amul te booy yaakaar nañ ma mbay Sarr rek mbay Sarr bu Sénégal moo tax mu am lii Pape Dou Fall ñëw dooleel ma ci nag Pape Dou Fall. moo ñëw gën ma ci dooleel moo tax mënu ma ko fàtte adduna mënu ma ko fàtte alaxira xam nga te mënuma ma dox ñaari mètre te néewuñu ma doomu ndoy Pape fal la la la preuve yow ci yow rek yow léegi moo tax àdduna bi damay wax ni jar jaru fi daw bay daanu man ëllëg réew mi am naa ci lu bëri lu ma xam lu leer loo xamante ni jàmm dong lay doon ak ngëneel mais ku yaakaar ni yaa doole ci ba tax lu la neex defal ndax adduna balaa nga xam ne adduna dara rek dee dëdmal la mm-hmm. macha allah euh, xam naa nag du ñàkk dinañ ci euh, boole waxtaan bi muy euh, ba léegi sax ci VIP la ñuy des coow la jeexagul diggante Sokh ak Eumeu seen ku nekk di tuumaal sa ay million ku ci nekk ba lagan sax démb génnaan di défendre Eumeu Sène ñoom seen diggante ñoom ñaar ak coowal millions yi ci sa morom. xam nga moo lay wan ni àdduna lu doy amul fen nit da ngay doylu Sokh bëreegul kase bu egg cent vingt millions nañu wante dëgg hmm? mais kon Sokh. Euh, li ngay dégg muy wax euh, di nuyuwaale Ama Balde di ko ñaanal jàmm yàlla defal ko jàmm di wax ni sox li muy génnee da ngay xool xam ni kii li muy wax nii da ko maîtriser te dëgg la ci moom di ko wax ni àdduna amul solo xam nga man li ma gëm rek. sox nga jox dëgg daal ci coow non du ma moom laa jox. boo dégloo ñaari version yëpp. man version sox rek laa dégg ndax am ñoo xam seeni wax du ma ko déglooti. lu tax dama ko dama dañ ma amul njariñ nit ku gëmul dara koo xamante ni yow gëmoo sa askan gëmoo dara xaalis rek nga gëm. xoola ñoom ni ñu leen terale neen yàlla terale jox leen ay combat cent quatre-vingts millions cent nanga millions nga jël ci ay ñaari avance te doylu woo kooku nan nga ko mën a jàppee dañu waxante dëgg te askan waa ngi sonn yéen ku ciy bëre ña dañuy garder sax sa kër booy yi ah est-ce que ñooñu di garder seen kër tey tabaski bi mu jub see ñoom may nañu booy xar ñu doon seeni seen i kër dañu waxante dëgg hmm? kon dañu war a dellu si ginnaaw te xam ne ñoom li ñu nekk du dëgg cuub drapeau baaxul nit de man maa ngi nii lii may wax ni tey la ko Pape du Fall yëg tey la ko yëg ak sama yenn nit tey mënoon naa dem ci ñoom yóbbu kayit di jooy yuuxu pour bëgg ñu dimbale ma. mais doon dundoo ma ak ñoom noonu damay dañ ñoom dañu ma xam ci valeur ma xam leen ci valeur andu anduñu andu intérêt tey balaa nga koo na xam dara riir jëm ci Pape du Fall lu ko nar a rey barki Sëñ Tuubaa da nga may rey ba pare doo ko jàll. mais seen seen coow li est-ce que du yàqal Pikine 200 pour cent Pikine bi ñu ngi commencé di tas de ndax soq instant boo taxee mi ngi attaqué. xaalis moom ku doyluwul ku ne mooy am cent million ba pare di yóotu 25 millions di yóotu 5 millions nañu waxante dëgg rek nit da gëm sa bopp. nit nag balaa ngay gëm sa bopp day fekk nga xam sa bopp mais boo gëmee sa bopp te xamoo sa bopp ci mooy waral ngay dugg ci détails yi rek xam nga soq suñu rakk la dañ koy ñaanal yàlla man baax laa ma sa xam ci moom ak respect xam nga loolu laa ma sa xam ci moom ah mais su nee bay génn. di wax ñu di ko tontuwaat muy wax yooyu mënoon naa ñàkk ñoom nañ xam ne booy yi seen i rakk lañ ñoom ñoo war a dooleel booy ñoom ñoo war a dooleel booy waaye yor sa ngant ak rek lu lu rot rek nga yaakaar ne foofu la jig bu yàggee booy dañuy fippu te ñoom seen bopp ñu ngi weerante sax lii moo lay wax nii li ma waxoon li ma waxoon rek lii ñu waxoon du dem yàlla ñu yàlla dolli sutura xam nga lu tax man damaa jàpp ni sama bàmmee la ngi nii may gis moo tax lu may wax rek dinaa ci xool sama digganteeg sama taraayu bàmmeel moo tax xaarim Ndiaye du neex a bëgg moo tax man du ma neex a bëgg booy kuy xaw a bëri noonu laa. am nañu ne ni muy jàppale Ousmane Sonko di ko li muy taxaw ni dëgg lay teewal ak bi lay teewal euh, sox moo tax yenn gars yi di ko xeer. waañ fii ñëppay taxaw dëgg. Ama Baldé aussi. bien sûr mais Ama moo waroon dugg sax ci Ama sax moo ci waroon dugg ndax carrière dafa metti dañoo xam dëgg dafa échec combat moo tax koo gis nga yi ñuy def nii ñàkk gëm seen bopp ak ñàkk doylu boo duggee ci yeneen ñàkk fayda moom nga ci kenn ko ci moom doo ko ci dégg ndax xam nga doo ko ci dégg dafa am fulaak fayda te pourtant nag dafa metti ci moom man xam naa ci dara dafa metti nga toog ko bëri woo te nekk soutien de famille say famille yëpp yaakaar la ah ya ni ñu waxante dëgg rek yaakaar la yow benn 5 millions sax mënoo ko mënoo ko ci depuis 5 ans ba léegi sa avancé nga yor jeex na tàkk ndax da ngay préparé ba mu des ñaari weer ñetti weer kee jàpp mbaggam ne di siri la am ci mbagg mi ñu yóbbu France opéré ji kii kii toog ba mu yàgg na dama rax sama liggéey médecin moo ci am kii ut hmm, mais yàlla damay ñaan rek yàlla na ko yàlla jàppale mën naa ni ñun lépp lu ñu yàlla teg rek dañuy jàpp ni dogal bu jógee ci yàlla la dañ koy muñ ndax xam nga lu tax tàngoor yi nga gis nii nga yaakaar ni été nga naan été laa gis nga tàngoor yi du été de ñaawteef yu bon yeq borom xol yu bon yi ñaan yii ak iñañati moom la yàlla di supéré aw tàngoor moo waral muy tànga du été de xol yu bon yeeg iñaan bi xam nga iñaan bi ak iñañati moom la yàlla def ni aw tàngoor kon il faut ñu delloo si xol yi yéeneen te jàmm li ñu bokk yow maag yow nañ ko wane kóllëre ba mat sëkk doxal ko ci li ñu ci gis ne est-ce que lamb du ci perte parce que lamb ji léegi jaxasoo na nit ñi tiit avenir lamb est-ce que ci situation bi nu mu demee nii yenn bëri dugg ci politique bi naam seen droit la mais est du yàqal lamb yàqal na lamb sax ba pare ndax koo wax mu ne la man mbëri kay ça va pas ndax mbër dafa am loo xamante ni bu cëram mbër fi ñu ko doon séentoo man damay jàpp bu lànk demee ba daar ñu génn wax ak jeunesse bi wax ak yi ne leen kat réew mi ñoo ko moom. ku nekk na nga far fa nga far mais nga ànd ak dal xam nga mais soo génnee ah ngir lañ lay jox moo tax ngay wax nit ñi dañuy xam ne yow gëmoo sa bopp xam nga man maa ngi nii eh, am na ay kilifa yoo xamante ni dama doon nekk ñoom mais jàppale wuñ ma te xeexal naa leen bëccëgal leen. su ma jaru may tudd tur xam nañ seen bopp su ma leen ooyee sax duñ ma jël kenn laa ci oo jot ko muy Pape Abdou Fall wala sama doom Waly Seck. daanaka ñu si ñu si catal émission bi mais du ñu waxtaan te daaneluñ ci sa euh, sa frère muy Balla Gaye dégg ko mu waxee bi ñu ko laajee question Casamance li mu toon xaw a bett ñu bari mu ne na Casamance moom bu fa daan dem papa moo tax ñenn ñi jàpp ni communication bi dafa des ni mu waxee dafay vexé ñi dëkk Casamance surtout at yi mu toog depuis papaam décédé ba léegi euh, demul Casamance te wane ni mu wanee comme si que moom xamul Casamance man de daa Rahman du ma du ma toog mukk naan sama papa lii bi ma fa demee fa bokk te mënuma am lépp foofu euh, moom nag comme noonu la waxee a ah, moom la concerné man bañaa ko sax ñoom seeni wax du ma ko déglu ndax seeni wax xamatuñ li ñuy wax sax dañuy wax du dañuy wax. ma xaw ma daanoo nuyoo te tuddoo ka waaw mais waaw wuy ma waaw daan koo xam da nga daan nuyoo sax na bari maa la ko tey léegi nga dem bay wax loolu mais da ngay xam ni est-ce que ñi perte ñu repère quoi dañoo perte ma mémoire quoi xam nga boo dugee ci loo warta dugg moo tax ngay waxee nenn ni rek quoi. te boo waxee dëgg ñu ne nangam ak nangam man nag dëgg saamu kaani la dëgg fu mu ma fekk fa la may bàyyi ngor fu mu ma fekk fa la may bàyyi gis nga àdduna toujours moo ko ko la lu doy amul fen si yow su ma la doon dox ay mili ay milliards di la ko jox di la ko jox di la ko jox yaay dem ba mel ne sàng ne doy na loolu mooy doylu doylu boo boo tibbee ci ndab sax lekk ga neex sax di nga suur sax te doyloo nga continuer lekk gaañ sa bopp doylu dafa am solo nañ delloo si seen xel ñoom. ah loolu day da nga koy laaj waa Casamance ak ñoom mais wax dëgg yàlla ku nekk sa cosaan moom dañ ne sa cosaan xam nga boo ko bàyyee xama ci looy jàpp laa jàppoon ba am lii bu ko bàyyee te jig ne la xëy na ñoom ñëpp waxi ko daanu ci saret rek la ñuy daanu ñoom xam nga waxi daanu ci saret la daanu ndax man du ma ba ñàkk sax ñoom est-ce que ah, mais neexoon nañu est-ce que seen combat sax dina amati njariñ wala dina neex. déggoolu ma la xam nga dama wax ni la dañoo nekk ci bisu iid ñu te ax bëgguma baalo ax ba pare di tooñ mais bu ñu demee ba it gi jeex ba ruus nga xam ne ñu mën a fi ñëwaat ñu mën a dugg ci ay détails ma leeral la lu bari di wax ni réew mi daal yàlla ñu yàlla defal jàmm rek yàlla fi jàmm sax ndax jàmm lu dul jàmm jàmm ko gën te jàmm nag mënta jóge ñu ñu yàlla jox kàttan gi jox leen force bi jox leen doole ji kon ñooñu rek ñoo mën a indi jàmm. kon sa doom Wally Seck léeg-léeg ñu kobas ko léeg coow am si moom ak yooyu. non xam nga man du ma wax lu ma wóorut billaahi loolu ñuy wax dara amu ci ay noon la rek yoo xamante ni yu nekk ci seen ruq mais ku xam yaayu Waly sekk xam baayu Waly Seck muy coon muy jaaga nga xam ay rakam Mouhamed ak Aline batara ba ci moomi mii nga ne leen jàkk rek sans Waly di nga xam ne ñii lu bon du dugg seen kër barki salaatul fatiha mais ay noonu nag man naa la bañ yebal ay nit ah. xam nga naa la bañ yebal ay nit te ñun xam xam nañ lépp lii fi muy jógee mais ku ñëw korog korog la fa nekk ci monde xaw ma ndax dem nga foola wala demoo fa nga xam ne lii amul benn musicien bu ko def fii ci Sénégal nañu waxante dëgg dëgg rek moo nekk kooku bu yoroon xoolu ki ñaan ak li ñu koy waxal yëpp dina ko defaat ci askan wi yooyu ñuy wax yëngalu ko sax yàlla bay Fall la barke Serigne lu Mbacke bu fekkoon li ñuy wax dëgg la kon Wally affaire am fay na bu yàgg ndax mënoo nekk ci Baye Fall nekk waa kër Cheikh Ibrahima Fall ba pare di jël ak di ko dugal ci sa bopp kon kon fay na waxuma sax yaayam yaayam <laughs> billaahi bu ñu xamoon ni ma xamee jaaga jaaga du jur ko bon barki salaatul fatiha billaahi loolu ñuy wax jegewu ko laalu ci taqu ci mais noonu nag dafa yàgg ci mim réew ñu bàyyiwul Serigne Touba bàyyiwuñ Seydina Limaamu bàyyiwuñ Alaaji Malik bàyyiwuñ Baay Baay Laay ñooñu ñëpp su bàyyiwul ñooñu doo bàyyi waale mais boobu day liggéey dañ bàyyi jàmbur yi ngeen def amul njëriñ dem leen def ni moom xoolal li joxe ciy xar ay près de 200 millions 300 millions 500 millions nga jël ko defar ci jaamu yàlla yi ba pare nag taxaw yaayam taxaw biir këram laa ne taxaw yaayam taxaw ma gis yaayam ak biisu ngóone te bu doon keneen ku sa doom amoon lii ca kaw étage ba ngay yéeg naan tàlla catu mais yaayam taalibe la yàlla la gëm ak yonent bi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waxtu du ko raw ma xam ko ci moom ba may ñëw ci kër Papa Thione boobu wàll da am dara tey tey lii jëkk lii Wally day Wally mission Papa Thione lay eggale te Wally bu dee jàngat ci waxi Papa Thione rek dara du ko métti bàyyi woyal na ko lépp li war a xew ci àdduna bala ngaa xam li sa baay ren daj nga màgg ba xàmmee bu taraa nga yokkoo noonu yokk yooyu yëpp woyal na ko kon Wally dara dérangé wu ko ci dafa fekk bàyyam ëmbalal ko ko lépp teg yaayam ji nga xamante ni moo ko jur mu xoolal aar ko ci kanam yëpp ci ak ñaanam nee na ko waa yaayam gis ngeen ko ñaanal na ko fi bay jooy Hmm? sa papa gaañu sa yaay taxaw devant les caméras ne bëggul kenn sa baay rek la bëgg gorsu am na ñoo xamante ni tey fii bu jaaga fii mu toll bu papa coon ki woon ña ngay xool leneen nañu waxante dëgg rek kooku jullitu yàlla la kon nañ bàyyi doom ji ñi kii ñi koy wax yëpp duñ ko gis góor góorgóorlul yàlla na la yàlla jàppale dénk nañ la yàlla ak yonant bi ak maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga gëm yàlla da lay jàppale li ngay def nag bu ko bàyyi mooy sa gàllaaj yàlla na ci yàlla dooleel. kontaan nga kontaan nañ ci waxtaan bi loolu daanelee. la sant rek ñaar njaayeen ñoo la seet si Ouzin ak Babacar. waaw sama doom bàyyi ndax li indi lii lépp Ouzin mooy jour tabaski da nga ma oo ma père li ñu def interview sax bëriwul mais baal maax man la baal naa la xam nga ñu am yu bëri yu ñuy waxtaanee ma yow yàlla na ko yàlla eggale moo waral tey ma lay gërëm Babacar ak Ouzin sama doom bàyyi di wax réew mi yàlla fi yàlla def jàmm du nuyu sama baay bi père ma Fall nga xam ni bëri bii may def moo ma ko dàqoon téeméeri junni yoon man moo tax amu droit wax lu bon xam nga moom mii ngay gis ni euh, lu dul makki gëmu ko ndax bourse yi mu yor mag soo mag makkee ko jox xam nga ñi ànd ak moo tax fii boo fi ñëwee ngoon ñi waa ñi dañu ànd ak Sonko <laughs> moo tax fi boo fi ñëwee moom mooy suñu baay dañ koy ñaanal mu nekk nag bàyyi exemplaire ci koñ Père Birima Fall nekk exemplaire nekk imam jàng alxuraan ba wàcc xam lépp nekk nit ku dal mais yàlla da ko jël xol bi def ci mag xam nga di nuyu sàmba Diop sama doom ndey sama xarit mooy borom Balié di nuyu di wax ni réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm xam nga jàmm daal moo moo nekk lépp di nuyu diaspora sax nga woote ndax balaa nga balaa laa def moo tax jàmm ci laay di ñaan diaspora bi yàlla leen yàlla defal jàmm sama xarit yi ma tuddul yépp ak ku ma tuddul xamal ni télé affaire télé moo mel noonu mais maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp Babacar di wax ni seen site bi yàlla na ko yàlla def mu jëm ci kanam jërëjëf mu nekkoon mi ngi noonu waxtaan baa ngi noonu ñu seqoon ko waxtaan suñu papa euh, Khadim Ndiaye gis ngeen waxtaan bi am na solo ñëw nañ ci nga xamante mooy xew-xewu jamono moom yaakaar ci moom ba ci doon ci yóbbul seen njaboot euh, euh, te taalibe sëñ Touba moom dafa war di nekk si jàmm saa su ne mu nekkoon Ousin ci waxukaay bi nekkoon Babacar mooy nuyu baax baax sama Thomas nga xamante mooy Liri Diane sànq rek ñu ngi déggante téléphone <laughs> États-Unis ma naan ko pourtant sa xarit laa sa xarit laa defal interview nii moom sama sama toomaal Ousseynou la tudd liiru maa ngi lay nuyu la baax baax a baax di la ziar merci beaucoup jaajëf